Ah, Barcelone danoo yaakaar ne buñ ko defoon ab daayira mu tane waaye daayira ba tey jii Manchester United ah, toj na ko tasar fële nga xam ni moo nekk Old Trafford ci match boo xam ni ah, Barcelone safi da caa jaaxle bu baax a baax léegi nii eh, bu mu rombee télévision espagnole bañu koy intéressé am na loo xam ni daanaka am na ko ci lu muy ñaawtu ci ay goneem doxalin boo xam ni doxalin na ko ci match tey jii nga xam ni bu amoon solo la tey jii nag daanaka ki leen faraj mooy feret mi nga xam ni daanaka fer ñenn na leen daal di dóor Barcelone benn mu nekk match boo xam ne ñaanal gone Barcelone yi li ci kanam doon ay tawféex yoo xam ne yu am solo ci match yi nga xam ne Barcelone dëgmal